nee nag mboolem li nga weesu ci xeeti pas-pas lu ñu war a jàpp ci wàllu suñu boroom xamal ne boo waxee rek baatub laa ilaha illallahu mu daal di ëmb yooyu yëpp yëpp yëpp ba tey boo waxee muhammadun rasulullah mu daal di ëmb leneen lu ñu war a gëm te du yàlla nga xam ne baatub laa ilaha illallah dafa ëmb mboolem xeeti pas-pas yi nga waxoon ci suñ boroom muhammad rasulullah nag mooy ëmb leneen lu ñu war a gëm lu bokkut ak yàlla day bëgg a tudd nag loolu nu mu demee ne al uluhiyatu maanaam nekk di allah boo ko déggee rek mooy jëmm ju sell joo xam ne aajowul jëm ci kenn kenn mbaa lenn lenn mbaa fenn fenn te nag képp ku ne ak lenn lu ne ak fenn fu ne aajowoo na jëm si ci moom koo xam ne daal aajowoo kenn mbaa lenn mbaa fenn te yow nag képp ak fépp ak lépp la aajowoo kooku mooy Allah mu dali ko firi ne boo bëggee firi laa ilaha illallahu da nga koy def ñaari tomb benn tomb bi mooy nga ne yàlla day mooy jëmm ju sell joo xam ne moom ci boppam aajowewul kenn mbaa lenn mbaa fenn dafa doylu ci boppam sëkk sëkk sëkk tomb ba ca des nga ne mooy yàlla day mooy jëmm joo xam ne képp ko aajowoo lépp ko aajowoo fépp ko aajowoo maanaam daal amul kenn mbaa lenn mbaa fenn foo xam ne mën naa woon gannaaw yàlla lu bokk te yàlla rek yàllaa ko sàkk di ko doxal mënta wéy bàyyi yàlla yàlla nag moom lim sàkk li muy bari bari aajowoo ci kenn mbaa lenn mbaa fenn ñaari tomb yooyu nag muy doylu ko yàlla doylu wëlis képp ak lépp ak fépp muy benn ak aajowoogu képp ak lépp ak fépp aajowoo jëm ci moom ñaari tomb yooyu nag ci la ñuy delloo mboolem xeeti pas-pas yi nga xam ne moom nga waxan ci wàllu yàlla bëgg laa leeral nag ana noo ko cay delloo ba lépp dugg ci ñaari tomb ñooñu day njëkk wax nag doylu gim doylu yan melo moo cay dellu ne boo ne yàlla daa doylu ci boppam sëkk-sëkk ci wet gu ne kon xamal ne mënta ñàkk melo yii mooy faaw rek mu nekk di ku am jëmm ju am di ku daliwul fenn di ku dul yam fenn di ku wuuteeg lépp luy mbindeef di ku wéeg boppam du wéeru ci kenn ba noppi itam nag set wecc wecc ci mboolem xeeti manqué yi ba tey nee na bi nga ne yàlla daa doylu ci wet gu ne rek dal ngay dugal ci biir ne kon kat yàlla amee na ab dégg ba yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom ak wax ga yàlla ca moom boo tuddee nag al samu al basaru al kalaamu nga xam ne ñoom dañoo bokk ci almahaan yi kon say boo génne waale ca seeni maana wiya asamhu jàkkaarloog asamihu albasar jàkkaarloog albasir alkalaam jàkkaarloog almutakallim li tax mu ne boo ne yàlla dolli na ci boppam du mën a ñàkk yii nga wax mooy nee na su fekkoon ne melowutoon yii kon benn muy xarab maanaam loo xam ne day fekk jëm mu taq ci waaye mënta taxaw boppam mbaa boog mu daal di nekk jëmm ju ne léegi nga xam ne kon daa sosu te du mën a ñàkk mu aajowoo jëm ci ka ko sos mbaa boog su fekkoon amutoon ak dégg mbaa gis mbaa ak wax ba amee kon ak gumba mbaa tax mbaa lu muy xeeti manque yoo xam ne kon faaw rek mu daal di aajowoo ku ko teggil xeeti manque yooyu moo tax xeeti melo yi ñu wàññi moom boo xasee wax ne yàlla daa doolu ci gépp wet rek dal ngay dugal mboole melu yu ñu tudd léegi mais bi nga ne yàlla daa doolu ci boppam sëkk sëkk ci wet gu ne kon nee nga yàlla kat amul benn bëgg-bëgg nga xam ne kon yàlla bu dee tëral benn àtte mbaa muy jëf jenn jëf itam daa fekk muy coobare waaye amul benn bëgg-bëgg boo xam ne moom la cay dabu ndax boo ne yàlla amee na bëgg-bëgg rek kon na nga daal di wax ne kon doylóorul ci boppam ndax ku amee bëgg-bëgg ku ne faaw nga aajowoo la lay jot li bëgg-bëgg boobee nee na li nga waxoon rek moo mën a am mooy yàlla doylu ci genn wet gu ne kon nag amul bëgg-bëgg amul xemam téef boo xam ne day aajowoo lu ko ko jot li ba mu àgg ca déedéet amul benn bëgg-bëgg amul benn xemam téef ndax dafa doylu biir ak bitee ba tey bi nga ne yàlla daa doylu ci boppam sëkk-sëkk ci wet gu ne kon nee nga sàkk gi mu sàkkkat mbindeef te mooy lépp lu mën a am amal gam ko amalkat nekkutoon warugar ci moom da koo soob rek mu def ko ndax bu fekkee da nga ne yàlla kat nangam da ko war a def mbaa nangam kat sañu koo def kon ngay wax ne léegi doyloo tut ndax boo xasee am warugar faaw rek nga jéem a def warugar wa ngir motli koo ko maanaam boo ne yàlla war naa def nangam li muy tekki mooy yàlla nekkul jëmb ju mat ju doylu ci boppam ndax boo xasee am warugar faaw rek nga aajowoo def warugar wa ngir mottali koo ko ndax boo ne woon nangam sëñu koo def itam faaw dana war a moytoo def loolee faaw war naa def lu man ndax bañu def loolee ndax loolaa koy taxamat ndax buñ ne nangam waru koo def rek war ngaa moytu bu baax a baax bañ koo def ndax nga mat ndax soo juumee ba def ko rek te fekk suñu ko woon def rek mu daal nekk ak manqué yàlla moom nee na doylu gi nga wax rek moo mën a am ci moom ñàkk aajowoo kenn mbaa leen mat sëkk itam ba du aajowoo def dara ngir di ko mot li ko dara jaam yooyu nag mooy melo yi nga xam ne moo dellu ci doylu gi yàlla doylu ci boppam sëkk-sëkk ci wet gu ne day bëgg a ñëw nag ci wax gi nga wax ne lépp aajowoo jëm si ci moom moom it am na melo yoo xam ne du mën a ñàkk ci moom bu amul rek lépp du aajowoo jëm si ci moom nee na boo ne yàlla lépp ko aajowoo kon daal ngay saxal ne yàlla amee na kàttan ak xam-xam ak coobare akuk dund juróom wett yii ndax boo tuddee alxayaatu day jàkkaarloog alxayu alqudratu jàkkaarloog alqaadiru al iradatu jàkkaarloog almuridu alxilmu jàkkaarloog alxaalimu moo tax mu teg ci wama laha lasim juróom wett yi moom bu fekkoon ne yàlla melowoowu leen kon du mën a amal dara dara dara te nag bu fekkee ne amalul dara dara dara du aajowoo jëm si ci moom te nee nga képp ak lépp ak fépp ko aajowoo kon nag loolu rek mën a am bi nga ne yàlla lépp ko aajowoo rek kon nee nga wéet na ci jëm ak melo ak jëf ndax bu fekkee da nga ne woon yàlla am na moroom kon ñoom ñaar seenu jàppante day tax dara du sotti dara du am bu ko defee nag bu dara sottiwut dara amut kon dara du aajowoo jëm ci yàlla ne li man am kay mooy li nga wax rek lépp aajowoo jëm si ci moom muy ku wéet ci jëmm di ku wéet ci melo di ku wéet ci jëf loolu rek mën a am bi nga nee suñ boroom lépp ko aajowoo kon nee nga lu bokkut ak moom rek dafa sosu ndax bu fekkoon ne am na leneen loo xam ne susuwut daliwul fenn kon moom day doylu ca boppam ba du aajowoo jëm ci yàlla dagam nee nga rek am na leneen loo xam ne daliwul fenn sosuwut day daal di mën a wéet boppam moom loolee nga xam ne sosuwut daliwul fenn te nag li nga wax rek moo mën a am mooy yàlla daal lépp aajowoo jëm si ci moom ne bi nga waxee ne yàlla kat lépp ko aajowoo dara mënu ko woon gannaaw dem kon dal di ngay saxal ne loo seen rek mooma moo ko def waaye mbindeef moom mënta def dara dara lu mu tuuti tuuti bu fekkee da nga ne woon am na lu bokkut ak yàlla lu mën a def dara dara dara kon day lu bokkut ak yàlla bu defee ba noppi loolee mu def day aajowoo jëm ca moom te bañ a aajowoo jëm ci yàlla te kon la nga waxoon ne yàlla lépp ko aajowoo dal nay deñ daa wax ne li mën a am kay mooy yàlla moom kenn mbaa lenn mënu koo wan gannaaw déedéet lépp aajowoo jëm ci moom te sax leen lu ne fa mu tàmbalee ba fa mu yem rek day aajowoo jëm ci boromam muy yàlla waaye mënta wan gannaaw yàlla ci genn wet ci fa mu tàmbalee ba fa mu yem li nga wax ne lu mbir tuuti tuuti yàllaa ko def waaye mbindeef moom mënta def dara dara dara loolu nee na am na yaari wàll soo jàppee ne dara ci mbindeef yi mën naa jeexital maanaam mën naa def dara dara moom ci boppam ni ki nga jàpp ne sawara ci boppam mooy lakk mbaa nga jàpp ne ñam mooy reggal wala nga jàpp ne ndox mi ngay naan mooy màndal lu mel noonu nga xam ne nga ne jëmm ji ci boppam moo jëf-jëf ja yàlla boolu ca dara loolu moom ak kéefar dëgg-dëgg lañ koy jàppee dana ko leeral léegi su fekkee da ngaa jàpp ne nag sawara ci boppam du mooy lakk waaye kàttan gi yàlla def ci moom ca lay lakke mbaa nga ne ñam ci boppam moom reggalut waaye nag kàttan gi yàlla def ci moom ca lay reggale baa nga ne suuf ci boppam bu tawee du moom mooy saxal waaye kàttan nga yàlla def ci moom ca lay saxale kooku itam day nuru pas-pas bu baax waaye du ko tax a baax ndax li muy tekki mooy yàlla kon am na yenn jëf yoo xam ne bu koy jëf da koy jaaree ci kàttan gum sàkkoon ba dénku ko ci dara bu jaare na ci kàttan googee jëfe ca jëf jëmu bëgg a jëf mel ne kon day sàkku ndimbal ci yenn jumtukaay yam defar bu bëggee jëf jaare ca jëfe ca loolu moo tax pas-pas bu sell jafe dañuy jàpp ne muy sawara muy ñam muy ndox muy leneen la ngay séen mu cay bàyyi ko muy nuru jeex itam jëf lépp yàlla te itam yàlla bu dee jëf du kat day jaare ca sawara wa jëfe ca mbaa ca ndox ma niki màndale ca mbaaj ñam wa reggale ca déedéet jëmmi reggal ga day feeñe ca ñam wa màndal ga feeñe ca ndox ma lakk ga feeñe ca sawara wa waaye yooyu yëpp yàlla ci boppam moo ko def su ko defee nag dafa def loola muy aada nga xam ne boo soxlaa mu reggal la nga dem nag jëfandikoo ñam wa moom yàlla ci bopp nag mu reggal la du ñam wa moo la reggal ba tey boo bëggee taal dem ca sawara wa taal ca mel ni sawara moo la jox la nga soxla woon ci sawara fekk na yàlla ci boppam moo la taalal yépp nag noonu la mel nga xam ne kon leen lu ne lay feeñe ca moom day aada ju yàlla def ca moom di ci jëflante ñun rek nga xam ne boo soxlaa loolee awe ca ci coobareem nag su ko soobee mu sottal la nga bëgg bu ko soobee itam du ko sottal ndax bu ko soobee man ngay naan te doo màndi mukk-mukk bu ko soobee man ngay lekk te doo regg mukk-mukk su ko soobee sawara wa yànj lool ba noppi nag sedd ci biir niki nam defoon ca ibrahim bañ ko dugalee ca sawara wa kon dara waralul dara yàlla feeñal mbir yi noonu rek ndax mën caa jëflanteeg nun ku jàpp ne menn mbindeef mooy def la muy def ak jëmmi boppam yàlla doonu ca dara dara ku jàpp loolu moom dañuy jàpp ne dafa weddi yàlla bu wér a wér ndax mi ngi saxal ne nguur yàlla gi am na ci ku bokkutul yàlla kuy soppandiku di def dara ku jàpp nag ne mbindeef kat dana di def dara waaye ci kàttan gu yàlla def ci moom lay defee loolee mel ne mu jàpp ne sawara kat dana lakk waaye kàttan nga muy lakkee yàlla ko def ca moom mbaa mu jàpp ne yéer yi ngay solkat dana la suturaal waaye yàlla def ci moom kàttan ngam lay suturaale loolu day niru pas-pas bu sell ndax jàpp nga ne mbindeef mi ci boppam kàttan nga nga xam ne ca lay defe yàllaa ko def ca moom loolu nag moom la nuru ndax mën ngaa jàpp ne làmp bii moom mooy leeral waaye nag kàttan gi nga xam ne ci lay leerale yàllaa ko def ci moom dañoo bëgg nag nga takk bu baax a baax pas-pas bi ci googu wàll da ngay jàpp ne mbindeef mii yàllaa ko sàkk te it defut ci moom kàttan goo xam ne moom mbindeef mi mën na caa soppandiku defut ci moom it kàttan goo xam ne su bëggee soppandiku moom yàlla jaare ca kàttan googee soppandikoo ca ndax day mel ne kon yenn jëf yi muy jëf am na lu ko ciy dimbale dañuy jàpp ne mbindeef mi jëmm dong la lépp lu feeñ ci moom du nuru jeex it it yàlla ci boppam moo ko def waaye du jëmmi mbindeef ma ci boppam moo ko def du ne it yàlla daa def ca moom kàttan goo xam ne moom mbindeef ma ca la defe loola du ne it yàlla ci boppam bëggee def am na kàttan gum defan ci mbindeef ma ca lay jaare jëfe ca yàlla ci boppam nag moo def ba noppi feeñale la mu def ca mbindeef moomee mu daldi feeñe ca moom daa waxan ne baatub laa ilaha illallahu ëmb na lépp lépp lu ñu war a fas ci wàllu yàlla mu ne woon dala koy leeralal na mu demee mu ne nag na mu demee leeralal naa la ko ba nga xamee ci ne kon lépp luy war a fas ci wàllu yàlla muy la ca mënta ñàkk muy la ca jomb muy la ca am man caa ñàkk loolu lépp wax naa la ni nga xam ne moom la duggee ci baatub laa ilaha illallah kon nag nu jàll ci wax baat bi ci des muy muhammad rasulullah moom itam li nga xam ne moom la ëmbe mboolem xeeti pas-pas lislaam yi ci des